Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen de presse jàngeen jëf yéeni kaay tey ku ci nekk ak fi nga fële réew mi quotidien moom wàllub yoon moo ko soxal ni ki tey ji mu dikkaat ak mbiram di Diop woykat bi nga xamante ne dañ ko tegoon loxo gannaaw li mu doon dawal oto te yorut permis naka noone assurance bu baax yéeni bi di ñu xamal ni li artiste bi wax ni ki démb ci kanamu atekat yi mooy kon njuumte la te di sàkku tribunal bi ci boppam daal di koy baal keroog ci atte bi tamit tamit procureur ci boppam tuumal na di Diop ni kon produire ay documents yu baaxul boole ci tamit ab passe avant ci tontug di Diop mooy kon am na assurance bi nga xamante ne baax na te war naa way ba atum 2025 li am ba am li attekat bi xam ne mooy numéro assurance boobu baaxul ndax méngawul ak li nekk euh, ci kuréel gi nga xamante ne moo ciy yëngu gannaaw coow li réew mi quotidien ñu xamal ni artiste bi ci boppam mujj nañ ko bàyyi au bénéfice du doute donte war naa fay ndàmpaay Vox Populi mi ci dikkaat di ñu xamal ndàmpaay bi ci boppam toll na ci cent cinquante mille francs CFA bi nga xamante ne moom Sidi Diop fay na ko yoon laata muy am li nga xamante ne moom mooy liberté assemblée nationale moom war nañu am li leen doy sëkk Le Soleil yéenekaay di ñu xamal ni njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye daal dinay jébbal njiital assemblée nationale ci boppam ab décret bi nga xamante ne moo war a addu jëm ci li ñu war a soppi constitution bu Sénégal ngir mën a tas au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social ni député yi ci boppam ni ki gannaaw ëllëg ci alxames gi lañ leen wolu ci ab session extraordinaire session bi ñu jàpp alxamis moo tax yor-yor bi jàpp ni CESE e ak HCCT moom keroog lañ leen fas yéene suul te mën naa nekkit ngëneel ci wàllu koom ci Sénégal ndax yéenekaay bi mu ñuy xamal ni état mën na ci di dajale lu toll ci fukk ak ñeenti milliards ci suñu koppar ndaje bi ñu woote assemblée nationale alxames gi day firnde ni Bassirou Diomaye Faye dafa fas yéene tas conseil social et canonné au conseil des collectivités territoriales bu ñu sukkandekoo ci les échos mu ñuy xamal ni député yu Benno Bokk Yaakaar nag jamono ji ñoo ngay waxtaan ci seen biir ngir ñoom i tamit sàkk seen pexe leneen li ci yéenekaay bi di xamle mooy projet de loi bi ci boppam boo moytul majorité parlementaire bi ci boppam daf koy gantal kon gannaaw commission pour le dialogue des territoires le témoin yéenekaay du ñu xamal ni conseil économique social et naka noone au conseil des collectivités territoriales ñoo ci war a topp waaye laaj bi suñu naataango yi di samp mooy ndaxam Bassirou Diomaye Faye mën naa am majorité bi tax mu mën a yegg ci mbébétam tontu lii mu mel ni L'As Quotidien moo koy indi ndax li mu wax ci tas conseil économique social naka noone HCCT ab ndëgg sërëx la bi nga xamante ne njiitu réew mi daf ko tegal benn Bokk Yaakaar li ko waral yéenekaay bi di xam le ni faw juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent député daa di nangu ngir ñu mën a andi soppar ñi ci constitution bi te booy xool ci biir assemblée nationale majorité parlementaire waa opposition bañ nañu wote loi bi loolee mën naa may beneen porox ndoll nguur gi ci boppam ngir mu mën a tas assemblée nationale bi assemblée nationale bi bu ñu ko tasee ci ay élections législatives la ñu jëm enquête quotidien di dikkaat ci loolee di jàngat taxawaay wi nga xamante ne parti politique yi ñu ngi koy amal jamono ji mu gis ni ci biir APR moom am nañu sëkk li leen doy mooy fexe ba juboo ci seeni biir ci beneen fànn ma Ousmane Sonko moom lu muy liggéey jamono ji mooy fexe ba gën a yaatal benn coalition ci Sall ma ngay mbébét dekkaliwaat parti socialiste ak yeneen yeneeni alliance yu bees parti socialiste moomee ak AFP moom lu bees la ñu soxla bu ñu sukkandikoo ci l'observateur mi xam ne ni ñaari parti yi moom ngir ñu dund ci opposition bi ci anam yi nga xamante ne moom la ñuy doxalee lu jafe lay doon ba jaxate mi doon prisonnier politique bu njëkk ci nguuru Bassirou Diomaye fay dafa mel ni mbégte ci boppam la ci am activiste bi sekk waxtaan wu ya ak suñu naataango yu le quotidien le quotidien di nettali li nga xamante ne moom lañ ko muy dund ci biir kaso bi lii askanu Sédhiou di dund neexu leen benn yoon ba tax ñoo ngay artu jëmale ko ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay li ko waral Sud Quotidien dañu nettali ni bokk na ci yenn ci ay jumtukaay yi nga xamante ne dañu ko tàmbale liggéey foofe ca diwaan ba muy stade régional bi ba ci centre culturel bi loole ak yeneen yi digle tamit demul cëng dikkul mbay laar gannaaw ay ndaje conseil des ministres yi ñu fa amaloon diggante 2015 ak 2023 moo tax ñuy sàkku nag ci njiitu réew mi mu daal di fexe ba càmbar yooyu la ci xool tamit koppar gi ñu ko jagleloon ana fan lañ ko dugal libération dugal ñu ci jëye bi am ca Pikine Technopole ak Fatouk ak ki nga xamante ne mooy Aziz Dabala ak Wali yéenekaay bi duñu xamal ni kon dikk mujj naa teg loxo li ñu mën a méngale ab association de malfaiteurs juróom-benn doomu aadama yi nga xamante ne teg nañ leen ci loxo tey jii ci talaata gi lañ leen fas yéene jébbal procureur bu Pikine Géejawaay kenn ci ñoom Fallou Diop ba léegi nag enquêteurs yi mënaguñ ko teg loxo yeneen i enquêteur la ñu nemmeeku ci dossier bi mooy ñii nekk ci réseau sociaux yi les échos def ci ab gëstu bu yaa ci phénomène boobee nga xamante ne at yu ñu weesu nemmeeku nañ ko ci Sénégal mu gën a fës lool ci dossier bi nga xamante ne moo ñeel faatuk ñaari bakkan yi ci pikin Technopole mën na ami gëneel waaye nag phénomène bi lu muy indi ni gàllankoor ni ay ñaawtef bëri na lool ñaawtef yi tàmbalee bëri moo tax yéenekaay bi di réew mi quotidien dañu xamal ni ñu bëri ñin ci tuuma te laalew ñu ci benn yoon jël nañu dogal ni dañuy yóbbu yenn ci ay tiktokeur ci yoon wàllu tàggat yaram lañu